tey ñu suñu émission bi nga xam mooy émission làmb tey yaa ngi seen daanaan di abu tey ma taral xale boo xamante ne daan la ci làmb di Sékou Tonn mais balaa maa présenté Sékou Tonn damay nuyoo di def li nga xamante ne tey maanaam di jaale ki nga xamante ne mooy Balla Gaye di jaale Sakess li nga xamante moo ñu dal di jaale waa axlu làmb yëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di wax ne bakkan bu ñam dund di nga ñam dee ki nga xamante ne tey mooy suñu papa Doubalès yàlla jëlee ko fii di ko ñaan yàlla suuf woyof ci ko am yàlla na ko yàlla xare àjjana firdawsi ah Seydou Touré ñu ngi lay nuyu. waaw dobar abu di wax ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi mhm. di sant suñu ñaari waajur mhm. di wax mention spéciale pour dof yi ñu bëggee yëpp waaw son mbokk dof yi waaw dof yi di wax 100 pour cent dof yi maa ngi bëggee ñëpp mention spéciale mhm. képp kuy bëggee cinq tonnes dof bi rek maa ngi bëggee waaw xam nga cinq tonnes moom cinq at cinq tonnes la di remercier ñëpp di dalee fi nga da fi nga dagee mooy euh, affaire u père Doubalès àdduna àdduna noonu la. Mhm. demal maa ngi ñëw la quoi. dëgg la ku ma rek da ngay dem. Mhm. waaw di ko xama ñu ngi koy jaale père Balla Gaye suñu papa la suñu grand frère la mhm. di ko jaale tamit Sadio suñu xarit la suñu lépp la di ko jaale xam nga benn caatam Yaaya Sakho ndax mu demee Casamance vraiment moom dalaloon quoi mhm. waaw Yaaya Sakho ñu ko koy jaale di wax métti ñun ñëpp la ñoo ñaax quoi waaw axlu làmb ñoo ñaax àdduna ñoo ñaax Sénégal ñoo ñaax mhm. waaw ndax moom représenté wu na fu ne quoi waaw ci ci drapeau Sénégal waaw di ko ñaanal fi mu dem gënal ko fi mu jógee ci barke Seydina Mohamed quoi yàlla taxaw ko boole ko Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jamono ji làmb commencé naa wéet waaw làmb commencé na wéet ndax euh, mag ñi nga xam ne tey. Mhm. Euh, ñoom ñoo waroon a dooleel làmb tey ñun di am référence ñun ñoo fi nekkatul. est comme tey kenn mhm. comme buñ ñu am kattan goo mhm. moo nekkoon si ñoom seen bopp ku ci mel ni suñu papa Double Less moom nga wax léegi nii. xam nga suñu maam loolu nekkoon si moom waroon na ko mën a exploiter muy dem mais yàlla suñu borom moo dogale noonu ay mbiram. Hmm. kenn ku ne rek lam def sa dessin ci nga yem. dëgg la noonu la demee quoi. Euh, ngeen li nga xamante ne moo am si Anciens Gloires mooy bokk ndey bokk baay bi xam nga ku ci xew la muy bànn xam naqañ ñëpp daal ci taxaw que euh, affaire bi commencé waroon nañu ko njëkkee actuellement def ko. waaw Odo War loolu nga wax mooy dëgg. Hmm. xam nga àdduna làmb moom affaire boo doxal ay ay ay quelques minutes la quoi. dëgg la est-ce que comprendre la waxee. Hmm. te nit moom nit mooy garabam quoi. ñun tey war nañoo mën a sol der dooleel suñu bopp loolu gis nga loolu nga wax noonu ñàkk a booloo googu moo tax làmb gi di dellu ginnaaw instant yi may wax yow nii ba nga xam ne ñun ñi tey ku si nekk jël sa option def ko ci làmb sax yow da ngay tiit ndax comme làmb da wër ne làmb par rapport na meloon bu njëkk quoi waaw ci bépp côté dafa wàññeeku mm-hmm. waaw léegi nag kon grand yi nga xam ñoo ne si kaw ñoo war a jàppale booy doole leen. vraiment quoi ñu dem mais grand yi moom ni ma gisee seen 100 pour cent bi moom. Mhm. ñoom xa kii xataluñ si kenn quoi. vraiment mais man moom euh, parewu pour dem si benn seen litère boo xam ne comme seen groupe yooyu noonu. Mhm. dugguma si man. duggoo ci pour loolu quoi. Mhm. man ambition boobu aw ma ndax kenn ko ne ak li nga gëm. waaw ndax man doyu doyu ma daal. <coughs> dëgg doyu ma. doyu si sa bopp à cent. pour cent. yii yëpp yu ñoom mbër yi ku si feebar dañ lay ketal di la ñaanal loolu war na mën a yeesee nga toon jamono ji ñu toll si li nga xamante ne mooy tey si lutte si yi waaw xam li problème bi mooy tey da nga gis benn ndaw mu nekk si koñ di bëri au lieu que nga conseillé ko ne ko demal wut beneen liggéey boo xam bu dul làmb tey boo xëy boo bëriwul kenn ko la jàppale quoi day metti day metti li jamono ñu Sénégal dafa war am liggéey dëgg mbër dafa war am liggéey li xam ne lu am solo la jamono ji fi làmb tool ngeen war a bëre le 5 décembre bële passé. xaw ma avril. ngeen war a bëre. waaw astafurlah le 5 avril ngeen war a bëre. nga war a bëre si diggante combat Ndiaye laax si li nga xam ne mooy journée. si waaw si Tapha Sow. ngeen war a amaat tamit le premier août ngeen bëggoon war a bëre combat ba yàqu boobu ak léegi ah ci diggante ki nga xamante ne mooy Pape Abdou Fall ñu ngi déggante ndax am na ay façon dimbali ñu leen dimbali parce que avancé jeex na dara newatu fi waaw avance moom jeex mooy deuxième turam. Mhm. ndax euh, Pape Fall ñu suñ ko xam yàqoo de yaakaar naa état jox na ko xaalis mais man moom amul kenn bu yokkuluñ ma dara ma sama combat abu six six millions laa ñàkk six millions mhm. laa préparé sama combat moom laa ñàkk mhm. juróom benn million laa ñàkk laa la wax man li ma génne ci ay sarax rek barke Seydina Mohamed su ma ko jox suñu waa kër man na rafetaay ma man ñaari saakoy poobar jënd naa ko génne ko sarax génn naa nag mu ñuul ñaari saakoy poobar barke leer alxuraan saakoy poobar naa ñaari saakoy poobar nag ñuul wàññil 40 jàkka jàkka ju ne. 4 mhm. kilos ñebe xonq 4 kilos 4 4 4 kilos yu weex. ay daal carax lu ne laa si génne li ma si génne si pere carax rek yaakaar naa bu ma ko doon séddalee géej waa du doy jënd jënd ba découragé. Mhm. barke leer alxuraan. sa combat ak Ndiaye la xaalis yu mystique nga ko yaakaaroon. non yaakaar ma si mystique. Mhm. xam nga tey ndaw bu ne da ñaan yàlla nga aar sa bopp quoi. dëgg la ndax on sait xam nga làmmiñ cet ak 5 tonnes ni mu xewee ni 5 tonnes 5 tonnes ñu koy tudd on sait jamais soo jógee si boppam mën nga jekk-jekk damm wala nga dee quoi te xam loolu kenn ñaanu ko daal da war a ñàkk sa bopp avant tout d'abord mm-hmm. mais man affaire Njaay Njaay laa xam ma wàccoon gi ko si buntu mm-hmm. su ne ma mm-hmm. nii ma romb ko si buntu bi nii billaahi wala bu bëggee ma ne ko kaa ñu bëggul ma ne ko kaa ñu tey ñu wax ci euh, actualité màggal gi ñëw na première dara ñor leen lu liggéeyal Cheikh Ibra ak ki nga xamante ne mooy jëmm ju tedd ji ñu war ko màggal muy le 26 septembre tey lan ngay wax ci li nga xam ne mooy safar si ak màggal si lan nga ciy wax. waaw li ma si wax mooy. màggal moom Sëñ Tuubaa moo ko wootee. Mm-hmm. waaw xam nga suñ Fallou ko njëkk moo ko wootee sax Tuubaa mais kenn ku ne sa kër nga ko daa defee. mais màggal ndimbalu ndimbalu àdduna la. Mm-hmm. tawféex la mm-hmm. tawféexi sëñ bi mooy exemple ka ka kaay leen kaay leen la quoi def lu baax ndax tey. ñu ngi mel ni ñu ne jox nga jox nit mu lekk mba suur moo gën nga tabax junni juma junni juma est-ce que ma te kon xam nga ne kon loolu noonu yaa ngi dégg kon dañ ko war a xoolaat quoi mm-hmm. yaa ngi dégg ndax tey foofu boo demee dañ lay berde teral la di la forcer ñam bi te yàlla moo ne inna akramakum inda la atqakum inna laaha aliimun xabiir ki gën a rafet jikko si yéen rek moom a gën yàlla loolu la quoi kon bis a ko war am ne moo ko may dër nit nit kii dër bu ko may kon loolu noonu ñun dañ see a góorgóorlu xam ne tey dañoo am ay moom dara du moom moom waaw mm-hmm. ku ci mel ne Aziz dana si def ay xéewal di jàppale gars yi di jënd ay li si mel ne ay nag ay yenn ay yenn di ko yóbbu ah, Aziz Ndiaye tey mu nekk koo xamante ni tey manimaa la géejawaay tey Aziz Ndiaye nekk na moom ak géejawaay ak yéen mbëri ndaw yi tey ban gis am. ah bon mhm. Aziz lekk 100 francs mhm. barke Seydina Mohamed. ci télé laa nekk. Mhm. mais démb. laa xam ne ñi baax ñu ngi baax. ñi bon tamit man na ñu ngi xam naa ñu ngi bon. mais Aziz Ndiaye démb barke Seydina Mohamed. ak moom fi mu toll ci réew mi nga xam ne tey Aziz Ndiaye pour man moom président de la république Sénégal sax Aziz Ndiaye ko ëpp baat ci réew mi est-ce que la waxee mais démb bi ñu si dëj bi mu dikk après mu nuyu ma dama 5 tonnes ndakamu mais ma dama tiit man daa dama ne kii man fan la ma xamee feeñu ma ko waa tellement après mu jox ma numéro guddi gi xoolal ma envoyé ko message mu woo ma téléphone barke Seydina Mohamed. di wax ak man moom wan ma ne ma géejawaay laa gëm ndax géejawaay laa amee lépp lu may am. Assis Ndiaye bu ñëpp meloon ni moom barke Seydina Mohamed laa la waatal. lu si amoon quatre personnes ku ci mel ne Assis Ndiaye. Birama Diouf. yaa ngi dégg borom yoof bu ñu si amoon ñeent rek wala ñett barke leeru alxuraan je je je jeunes yi dellu ginnaaw du bari. seen yëpp seen est-ce que ma naa mm-hmm. ndax tey daf ñuy ne yàlla suñu wuñ ko xool ko ju mel ne sëriñ bu SCBM sëriñ bu ko kenn gënu ko est-ce que ma naa ko mën ko envoyé te gis nga numéro boobu noonu bi ma ko yoree ma toog Aliou bi ma joxe numéro ma kii Aliou Seye 2 dama numéro bi Assis Ndiaye moom ma sa yor te xoolal léegi am 5 la yor xaw a ñett rek sensible numéro est-ce que ma la ay sama numéro bu njëkk ba ngay dégg mais Aziz Ndiaye moom ah, référence kuy wut référence référence jàppal ci Aziz Ndiaye abu Aziz Ndiaye barke Seydina Mohamed la wax ma yooxu ñoom xool mu toll moom instant yi ci réew mi xam ne dama ne laa barke Seydina Mohamed Macky Sall la président de la mais ñun dof yi moom ñun dof yëpp bari nañ pour ci ànd ak Aziz ci lépp lu nga xamante ni tey mu ngi soow mi di ko naan. ndax xam nga lu tax dafa def c'est noble saisonnière mooy nga gis benn booy mu nekk dara nga xam ne tey am na ñoo xam bu la tuddee rek yow da ngay war a gën a góorgóorlu ndax nga xam ne ñi kon ñu ngi lay gëstu <laughs> la waaw ñu jërëjëf Aziz Ndiaye nit ku baax la di doomu géejawaay. di jàppale géejawaay. mais ñu dugg tuuti euh, ci mbir mu actualité tuuti rek ah. jamono ji gis nañ que ne li nga xamante ne tey mooy am na ay sé sé di nga faral di seetaan ay film série da ngay seetaan ay séries. waaw ban nga si gën a seetaan. man waaw yaay wax rek man moom yëpp ah. Ah, yëpp ngay seetaan mais li nga am nga tey ay summi ay silib ci biir séries ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ci am tey tey loo gisee loolu tey ak ndaw ñu koy seetaan tey. waaw xam nga jigéen jigéen amul lu dul diggam ak personnalité gis nga abu digg ak personnalité su dañee seero mën nga xaraw yaa ngi dégg loolu kaa leena ngay wax mm. mais leena dafa war a xam ne moom loolu xëy na xam nga tey nit ku ne. li ngay def mu mu mu mu mu mu taal la doo ko xam ba mu koy def xëy na mu jublu si woon loolu. mais nañ ko sàngu sutura pour passer ci loolu. mais pour encore une fois ñi nga xam ne ñu ngi si ñu ngi si ñu bàyyee xel ne ñoom dañu war a am ay sët. yaa ngi dégg abu kenn ku ne da nga war a liggéey sa passé est ce que maanaam fi ma waxee après ëllëg say yow bëggoo tey nga def loo xam ne si internet wala dara say sët dem ba benn moment ñuy gis sa histoire gis benn affaire boo xam ne bu ko seetaan dinañ jooy fu leen foo xam matt seen baaram bu cax non loolu c'est pas logique est ce que maanaam fi ma waxee mais xam nga saa yooyu tamit rafetul quoi ñun ñi nga comme exemple ngay seetaan ay yooyu noonu jigéen de simbi silib xam nga fekk da nga xooñ koññër bi comme sama genre gi xam nga tamit raisonnable quoi day mel ni saaru comme euh, euh, gars yi kii quoi yi tegtale yi xam mais léegi abu dëkk bi moo yàqu dañ ko war a defaraat mais kenn ku ne yaa war a yar sa bopp nga xam ne yow yaa ngi dégg daa am loo xamante ni tey yow moom ngay représenté représenté quoi vor de voix nga quoi mm-hmm. est-ce que comprendre ma la waaw ndax cinq tonnes vor de voix tey buy wax day man dëgg la mën na wax comme comédie mais mais am na loo xam ne du ma ko wax tey ëllëg man samay sët di ko kii non même pas est ma la nit ku ne na amul lu dul loolu abu waaw mais pour cas leena moom nañ ñoom ñi nga xam ñoo nekk si milieu boobu nañ a baax quoi loolu moom nañ si maytu quoi pour a ñagaat seen boobu rafetal liggéey bi quoi dëgg la loo gisee kaw Dieyna Baldé fan yi bi bari na ci yi loo loo gisee loolu tamit. ba tey xam nga xam nga. abo milieu boo dem am nañu ko na ñoo xam dañuy yàq valeur dañuy yàq jigéen. yaa bu yenn saa yi nga jëflante ak jigéen koo xamante ni ah billahi wallahi wa taala dootoo bëgg jigéen est-ce que ma la mais tellement léegi télé bi moo yomb télé ñëpp a seetaan télé booy yeeg kër goo dem am léegi booy yëpp xam jigéen kër goo dem am na télé da ngay seetaan télé gratuite léegi bu njëkk da nga daan xam nga ngeen rance di seetaan télé mais léegi kër goo dem am na télé laa la wax est-ce que ma mais comme ñu noonu laa wax am na ñoo xam dañuy yàq dóor jigéen ñi yaa ngi dégg mais seen i xama rek yan itam si yarin bi lay doon koo abu ndax yow tey am na loo xamante ni tey jomm nga ne tey man dinaa dili sama papa di ko dégg wala sama yaay est-ce que ma mais am na ñoo xam ne ñoom c'est ma de c'est ma de ça y a pas si concentration si lañ gis rek mais loolu dépasse de logique mais il faut après les mirsauter il faut les mirsauter les derrière pourquoi les mirsauter les derrière il faut les mental surtout les après les grands-mères wala les grands-pères il faut se réserver il faut les sët il faut c'est c'est c'est kii c'est c'est tout le temps que c'est c'est regarde cette image là avenir cet homme non pourquoi ah 5 tonnes c'est mon c'est mon grand-père wala c'est c'est grand-mère ah il faut resarcir les sët il faut regarder ah non si oh c'est mon mam c'est mon grand-mère c'est y a pas de temps booy il faut les les de jeunesse ah jooy c'est pas logique mais kon toi tous les tous les tous les tous les tous les jeunes il faut les concentration c'est ñàkk c'est c'est toi c'est c'est c'est teg barrière les missiles barrière c'est toi c'est les carrières pourquoi c'est la carrière ndax c'est toi il faut les màggat mhm. il faut don il faut don les les les les les comme comme les prier mhm. ndax il fo les jaamu yàlla mais c'est pas logique il faut les les jeunes c'est demander la Dieu tous les jours les jaamu yàlla c'est si concentration démarrer si kaw mais comme y a pas de faux faux faux tout ici demander les les les les màggat mhm. c'est c'est demander la Dieu les prier c'est réciter c'est ñaan c'est pas logique kon il faut jàpp xam nga dañu war gëm suñu boobu quoi xam ne ñun yàlla ñëpp la fi nekkal yàlla jeexul mais isant yi nga nekk sa kàttan am lu man lu ne yàlla ndaw lu jaamu yàlla la gën a bëgg ndaw lu jaamu yàlla ñaan yàlla may ko ko dëgg la Sénégal foo ngay làkk yow kese ko dégg daa mel non xam nga da ngaa maa ngi sant sama musée mooy musée ndaw maa ngi jàngi rénovation maa ngi sant suñu waa classe ñoom ciw na xam nga ñëpp man sem 3 laa bàyyee waa sem 3 musée ndaw moo ñu doon jàngal xam nga maa ngi koy sant waaw sem 3 rénovation sem 3 mooy euh, foo njëkkee sixième <laughs> ah? ah sixième deuxième wala sixième waaw bu ñu sixième sem 3 troisième waaw noonu la waaw comme noonu waaw man xam moom. <laughs> yaa ma gën a xam quoi. ay ay ay ay ay quatre quatre plus deux laa am ay ay ay deux plus trois. waaw yooyu noonu laa doon am quoi. ndax boobu xam nga concentré wu ma si njàng mu baax a baax quoi. Mhm. di wax jeune moom dama bon bon. mais foo déggee français. ah français yow li bay làkk comprendre comprendre naa liggéey laaj kay man kay xam naa liggéey laaj. <laughs> waaw kon kay jeex na mais non mais nag xam nga daf kenn ko ak may suñu borom quoi. day fekk da ngay yàlla def si yow benn don boo xamante ni da ngay doo comprendre ni muy demee. Mm. mais man tellement dama teel ba may dama nekk xale ma bëggoon affaire làkk français quoi. moo tax bi ma ñëwee si école bi rek daanaka ma buñ daa tari nii sax di nafar école buñ daa nafar nii mm. maa si jël pee nafar bi. comme bu naa téye comme sama man sa bu ñu ma daa bindal lépp mhm. su ma ñëwee sama médecin sama kii médecin bi ki nga xam ne mooy jàngale médecin bi mhm. dama koy jox kayit bi a <laughs> mhm. moom quoi ah kon baax na kon maa ngi sant tamit madame Aïssa ndax xam nga 5 tonnes moom benn ndaw la bu judd 1997 comme ni ma la wax mhm. hmm, a indoone. Ah. ñu dal. <laughs> waaw dañu am fu dal mais abu. Mhm. abu nañu jàppalee. Hmm. ñi nga xam ne seen loxo jot na seen ginnaaw abu. Hmm. comme dañuy delluwaat daree tuuti quoi si comme cas yi ma la wax noonu. ñi nga xam ne dañuy def ay social na ñëpp na ñuy xool gis nga def abu lu wax lu baax ku ko def yaa ko moom. kenn ko ne sa bàmmeel yaay njëg naa sa loxo day sa loxo nday joor. Mm-hmm. est-ce que comprendre nga te gis nga gis nga euh, xam nga xam nga malaaka mi nan la demee malaaka mi mooy malaaka mi jëlee ci xaw ma jibril xaw ma mm-hmm. xam na lay demee mu ngi mel ni tey abu ñu teg añ bi rek yaa ngi dégg mhm. man kon euh, ma la ko ma ñu teg añ bi mhm. ñu commencé rek ñu ne ku loo añ waaye am jëlal mhm. gis nga euh, malaaka mi su ñëwee xam na lay def day sa dossier sa armoire bi nga amoon day dem indi ah, da ngaa nekkoon di mooy di def ay serante la lu nekkul vin ici bu la dóoree ah barke sëñ Bamba mag sa repère xam nga sa repère fan lay dem comme tey yaa ngi 2021 sa repère day dem ci ba ngay ba ngay soog a judd ay 2000 2000 nangam dëgg tey soo waaw foofu laa waxee. mais abu affaire mbënd bi tamit dañ ci dañ ci dañ ci développé bu baax quoi. dafa am ñu sonn surtout ay jëmbal ay jàmmagan ay caaro yi. Mhm. abu barki Seydina Mohamed am na ñoo xam mañ gëjee tëdd ci lal kenn xamul kañ la. man gis naa sam benn xarit ma demee këram barki Seydina Mohamed ci ndox mi lañ añee. Mhm, mhm. est ma léegi na jàppale na jàppale ñooñu koo abu. gis nga mairie ñoo liggéeyul nañu wax ne dëgg. mairie dañoo liggéeyul Macky Sall barke Mohamed su doon dox suuf la teere dugg si mairie mairie bari dina leen folli nee ma ban meer moo yeewoo ko xam. ban meer ko xam laaj ma ko. dama ko xam Bamba Fall xanaa xanaa Medina. Bamba Fall meeru Medina moom. xaw ma ko musuma defal dara mais c'est noble lay def day jàppale population bi dox suuf la terre di leen jàppale ku si mel ni moom mais Assis Ndiaye laa la wax barke Seydina Mohamed li muy liggéey gi zëm bi ak ci dëkk bi Assis Ndiaye. borom géejawaay. billaahi wallaahi wa taxalaay bu ko buñ ci amoon ñett ñu mel ni moom. Sénégal jëm kanam Birama Diouf tamit xoolal kooku day def te loxo ndeyjooram càmmam bi du ko yëg. dëgg la euh, sëriñ boobu SMM nañ jàppale jeunes yi quoi nañ jàppale jeunes yi. jërëjëf surtout affaire mbënn bi. jërëjëf Seydou waa di sant ñëpp. Mm-hmm. di sant waa géejawaay. di wax mention spéciale pour dof di bëggee képp koo xam ne yaa ngi bëggee 5 tonnes dof Birama Diouf séeri madame Diouf papay bébé Yacine borom Yoff borom Maris séeri madame Diouf mm-hmm. di sant waa Yoff ku ci mel ni maire Yacine ak ñoom rugi gaale foofu noonu di sant ñëpp di sant Assis Ndiaye nag maa ngi koy sant bu baax a baax a baax mm-hmm. barke leeru alxuraan deful ma dara de mais conseil gi ma conseillé loolu dafa ma marqué tellement barke leeru alxuraan man du ma man du wax lu ma ni def ndax damaa jàng ba toppaat ba womani slim mm-hmm. déggoo ma de dégg naa jàng naa français jàng naa alxuraan naa arabe jàng naa nigérien jàng naa anglais lépp laa jàng maîtriser ko kon war na maa dépassé fu may fenee est-ce que maanaam la mais maa ngi sant ñëpp di sant waa Papa Gueye di sant xam nga ñoom bàyyi cekk foofu noonu ay Omar Pono xam borom Fass Mbao borom Maris yaay ngi di sant ñëpp daal di sant surtout waa géej waay gi may yeewoo maa ngi sant nag sama xarit jigéen yi mhm. xam nga sànq ni mooy loolu comme ko ci mel ni Awa mhm. xam nga Awa Ndiaye di sant bébé Fall mhm. xam nga mooy Fatou Fall di ko sant di sant waa centre bi nekk foofu yëpp xam nga waaw di bëgg ñëpp daal abu yow tamit di la sant ndax yow su nga su xarit nga ndax lépp loo xam ne dama koy bañal ni dama koy nangul yow liggéey bi boolewuñ ndax dañuy seex yeneen détail yaa ngi dégg di sant ñëpp di sant sëriñ yëpp di sant Baye Jili Mbacke borom léegi-léegi waaw waaw sëriñ waaw maagal gi moo xam naa moom la ñu dalal maa ah, ngi waaw Dakar Midi moom dina maa leen di suivre quoi. Ah. vraiment ñoom dañoo war a dem rek ba nekk télé bu mag quoi. incha waa waaw mais ñu ngi si yoon bi daal. di wax na dof yëpp laal xam nga bés. kolos waaw bés kolos bi rek abonné quoi. man de abonné naa man Seku dof bi. di wax dof yëpp nañu abonné grand parce que parce que kii bii nii. Mhm. billaahi ah, maa ngi ko suivre ndax mu ngi xam dox si suuf terrain di xool gësu affaire yi. di jàppale ñi nga xam ne tey seen loxo juddu seen ginnaaw ñun moom fort de kii l'enfant sans voix quoi moom lay def moom. incha allah waaw l'enfant sans voix ah. mooy mooy ñi nga xam ne amul fu ñu waxee moom moo leen di. jël moo leen jël ñuy wax. waaw vraiment kon Dakar Midi daal ci kaw si lu baax quoi. di wax man 5 tonnes dof bi de maa ngi ci man. daa maa ngi ci waaw jërëjëf 5 tonnes dof bi kon mu ngi Dakar Midi